le, jeudi. de faire une Je salue tout simplement commencer par dire que, à mon avis, il n'y a rien de nouveau le soleil. Sous le soleil de Matissade depuis maintenant une dizaine d'années, on assiste à cette traque, à cette liquidation d'adversaires politiques rien n'a changé. Donc ça, elle dans la même logique. La seule chose qui change, c'est que nous avons affaire ici un cheval non partant. ça, est non partant. Sachant qu'il est non partant, il essaye d'aligner une ligne de non partant à côté de lui. mis euh, Kadouad à côté, Khalifa Sal à côté, donc c'est provisoire, nous l'espérons. Euh, euh, maintenant, c'est le, cas, ou le, le <laughs> maintenant, c'est autour de Swanson. On va dire jamais 203. D'habitude, on le dit. Mais je pense qu'un cheval avec deux pattes cassées est impossible de prétendre gagner en, course avec un cheval qui a ses quatre fers bien cibles. Ce qui nous amène à cette situation de fait. Qu'est-ce qui doit changer Est-ce que c'est la, la, la, procédure de Macky Sall qui est de toute façon logique avec lui-même, de ne pas vouloir l'adversaire politique, de ne pas vouloir un jeu démocratique, de faire pour écarter ses adversaires. Rien n'a changé. La preuve, il n'est même pas assez original pour nous inventer quelque chose de nouveau. On, on, est, on est en train de parler de, de l'article L29, l Si ce pas L29, maintenant c'est l Donc rien n'a changé. Il est dans une logique, il n'a même pas d'originalité. Il aurait pu choisir autre chose. Remarque, il a essayé de choisir autre chose. Il a essayé le procès avec euh, cette dame qui maintenant, je crois que tout le monde sait ses opinions. Il n'a pas terminé. Mais entre-temps, ils se sont dit à un on va s'accrocher à ce poste de diffamation. Et par hasard, M. Mambaignan, qui hier était content d'avoir deux mois de, condamnation de sursis, hier parce qu'il a six mois. Qu'est-ce qui a changé entre il y a un mois, la condamnation de deux mois avec sursis, à celle d'hier de six mois avec sursis En réalité, la seule chose qui a changé, pour que l'opinion internationale le sache, c'est le rêve d'une inéligibilité qui, est sur, plane sur la tête de, de présentement. Je lis un rêve, j'ai dit un rêve parce que c'est un rêve de Macky C'est au, au de décider si ce rêve sera une réalité. Ce ce qu'ils accepteront que Macky continue ce cauchemar qu'il est en train de nous faire vivre, c'est-à-dire éliminer ses adversaires politiques, ou là, on va l'arrêter, le stopper pour de bon. Je crois que ça suffira pour la version française. je suis beaucoup plus pertinente en Wolof. Euh, je vais m'en aller dire ce li ma bëgg a wax rek mooy li nuyu askanu Sénégal di wax ne man jàpp naa ni dara beesul ci li xew fii dem am nañu ci nag mbetteel am ci naqar waaye foog naa ni kenn ci ñun nelawul kenn ci ñun géntul woon ni itam procédure yi ni ñu leen doxale que président Macky Sall leneen la doon wut dugg li mu doon wut mooy lii mu jéem a def dem mooy une condamnation de six mois pour mën a am possibilité bloquer Ousmane Sonko ci candidature ndax ndaxte moom dafa nekk ab genre euh, euh, koo xam ni moom xam na ni bokk dégg naa léegi ñu ne ñëpp bokk ñëppay bokk ba mu des moom moom du bokk mënul bokk amul sañ-sañu bokk amul waxtaan bu mu mën a waxtaan ba ñëpp bokk ndax ñëpp boobu moom te la bokk te moom mënu cee bokk. mën na nag doon ñeneen ñi bokk fexe na ba moom comme non partant la ndaxte moom dafa am handicap ñu ko yow mënoo dem muy wut nag ay moroom yu mu aligné ne yéen it mënu leen dem comme nag ñoo yem comme ni ñuy wax euh, ni ñuy wax xaw ma bukki bu amee lu ko dal day wut ay moroom moom ci tànk yooyu la ne man mënumaa dem dinaa fexe ba wut kàddu yi rafetul moo tax ma yem ko mën naa fexe ba parce que samay war a foog naa mën naa fexe ba jéem a ay nit yoo xamante ne moom ñoo ma bokk mbir ci tànk yooyu la nekk dama ni loolu dara beesu ci parce que loolu kese moom képp loolay xalaatam loolay xam-xamam bu toog ci réew mi liy bees mooy ñun suñu taxawaay suñu taxawaay mooy taxawaayu askan bi loolu mooy bees te foog naa ne nag sant naa yàlla bi ma gisee taxawaayu yeewi askan bi ak li ma dégg ci ñoom parce que jàpp naa ni fii amul kenn koo xam ne li nga taxawoon démb ci boobu Ousmane Sonko tey li ci taxaw lu toll nii nga wàññi ko ci nekk ndax li tax mënul nekk mooy dañoo am des destins liés li tax mënul nekk mooy ci soutenir Ousmane Sonko du soutenir Pastef wala nga soutenir benn idéologie mooy soutenir la démocratie sénégalaise mooy jàpp ne kenn Macky sàll ñëpp dafa bëgg a xot leen xot leen ba nga xamante dañuy loof mu ne leen léegi nag kaay leen ma xool nu ma defante yéen kii ne ba dama ne rien n'est perdu parce que ci ay débat il faut que loolu mu leer certes il y a une condamnation hier mais je pense que ñëpp xam nañu ne bu fekkente ne pourvoi en cassation dinañ ko def fast track ni ko ni ñu ko tàmm di defee foog naa ni ba tey ay jéego mu ngi kon nag les Sénégalais ont largement la possibilité de poser des actes avant que cette condamnation ne soit définitive parce de ça il s'agit d'éviter d'arriver parce que tout simplement dafa am luñ fi teg yow daal mënoo rëcc kaay ñu wax la ci diffamation doo rëcc waaye bu dul diffamation tam dinañ la indil beneen dossier criminel mënoo rëcc Ousmane Sonko daal mooy nga xamante ne tey jamono jii bokk ci ñun di suñu candidat comme ñu yeneen candidat yi nekk suñuy candidat ni ñuy xeexalee suñu candidat yëpp pour ñu bokk noonu lañ di noonu la ñuy xeexalee Ousmane Sonko pour que mu bokk parce que ñun benn kàddu lañu am na ay góor doo nga fi doon tool yi nag bare na wax ji bare na mënta ñàkk comme li may wax rek ndaxte àdduna ay nit bu ñu bokkee ndey ak baay sax ñu jote mais li may xam mooy ay nit bu ñu bokkee deret dañu war a rus tuurante seen i deretu morom donc on ne se donne pas des coups entre frères de sang on ne doit pas faire tomber le sang de son frère ça évitons-le et Yewwi Askan Wi est une famille donc nous devons tout faire pour que le sang qui coule soit le sang de Macky Sall et non le sang de l'un des nôtres ça c'est un benn benn benn wax la boo xamante ne kenn suñu ku nekk daf ko war a wax parce que kenn su nekk dafa war a xam ni lii ñu boole ëpp na suñuy ambition personnelle ëpp na suñu ay bëgg-bëgg personnel c' est l' avenir du Sénégal l' de la démocratie parce que comment on peut dire qu'on empêcher les candidats de Yewwi bi Wi comment on peut dire qu'on accepter un un candidat de Pastef ki ak lépp lu nga xamante ne moom la wone ci parcours am politique nga ne da ko écarter des présidentielles pour lu neex président Macky Sall loolu mënul nekk kon rek ci la ñuy mooy takkuwaat takkaat suñu ay sër yi feccee ñu fexe ba fasaat leen li nga xamante ne ñaaw la ñu fexe ba defar ko mu parce que fii dara xajagu ci ba fii ñaaw lépp lu lu lu fi nit ñi gis rek je pense que ci démocratie la nekk donc li may wax mooy lii euh, Déthié Fall wax te foog naa président ak di ci ñëw léegi muy ci plan d'action bi ñu jàpp ne nekkul na rek yeewi askan bi dafa nekk ci réactivité non non dañu nekk justement ci processus boo xamante ne on est obligé de poser des on est obligé de se battre parce que ki ñu jàkkaarloo c'est pas un homme sincère Macky Sall n'est pas sincère il n'est sincère à rien il n'a aucune sincérité en lui parce que manque de sincérité weesuwul nga toog une génération lëmm xool un avenir xool le Sénégal nga ne yow da ngay choisir quelle est la destinée de ce Sénégal là ça ce n'est pas être sincère avec toi parce que bu ñu ko ko defoon moom du bokk bu ñu moom du jiite Sénégal alors on a beau on a beau dire ay nitu jàmm ñoo fi nekk ay nitu salaam ñoo fi nekk kenn ci ñun bëggul ay parce que kenn ci ñun balaa ngay dugg ci politique kenn déggu la ci ay kenn gisu la ci ay kon ay nekkul loo xamante ne sunu bébét la wala suñu yéene la mais que ce soit bien clair on n'acceptera pas il faut que le peuple le sache il faut que les partisans de Ousmane Sonko le sachent il faut que les militants de PASTEF le sachent il faut que tout le monde le que li tey di xool lan moo neex Massamba lan moo neex ma dem on est obligé d'aller jusqu'au bout parce qu'il y va de la survie de la démocratie et de l'avenir des jeunes de la jeune génération de ce pays-là nous nous battrons nous serons debout nous serons déterminés et nous irons jusqu'au bout li ñu koy dooleel nag mooy ñu jàpp ne benn ennemi nekkul fii table benn ennemi nekkul fii ci table benn adversaire la ñu am bu ñu ko fàtte benn adversaire la ñu am mooy président Macky kon nag si les gens ont à tirer que tout le monde se retourne et tire sur le président Macky Sall qui est lui seul coupable de cette déchéance de la justice coupable des conditions difficiles des populations qui est lui seul coupable de la situation actuelle que nous sommes en train de vivre. Nous, réitérons notre solidarité bien sûr à Ousmane Sonko et nous disons que au-delà de ces, de ces procédures par rapport à cette diffamation. Il y a d'autres procédures, mais qui sachent que nous serons toujours à côté de lui. Je crois pas besoin qu'on le dise, mais que l'opinion le sache. xam ni fii kenn bàyyi fi kenn kenn benn fi kenn kenn du fi kenn benn fusil d'épaule kenn du fi changé lenn looy doxee li ñuy def rek mooy ca lañ nekkoon ci loolu la ñuy nekk ba tey mooy continuer combat démocratique bi fexe ba ki warul bokk moom bu mu bokk mais ñi war a bokk dañuy bokk par la force te loolu